Sardar Eka Sardar Eka يساك يا خلوان الدراي الدراي سا خير الجزاء ما يشنك دارك أولاك خمسة سيساك يساك يا خلوان دائما مولاك خير الجزاء ما يشنك دارك أولاك بيسر انسار فدم على سطوان إخلاص مجتهد السر والجهل Africa. فاعلم بأنك عندي سرور لن أبدا سكرفك في سنسار دنيا وأخراك سنسار جزاك يا خلوه إبراهيم مولاك إسحاق خير الجزاء سري سار فلم بأنك دي سور لن أبدا أبدا وستعرفك في سنسار أخرى كنت سري سار كسرك lan abadan abadan wasagari uga bisa ngesar dunia wa ukhra kada zain kada ya khiluri

مسار فضل على صدق والإخلاص مجتهدا في السر والجار كيدا من بشر ساجدك يا قلبي مولاك مولاك كسب مسيبي مسار فضل على صدق والإخلاص بالإخلاص مجتهدا في سر والجار كاي تنمو مسياك وبالإنسان جزاك يا إبراهيم مولاك خير الجزاء من شيخ إبراهيم مسار جزاك يا خلو إبراهيم مولاك خير الجزاء ومناسب سار سوا مناسب sëriñ xalil saar ku day am kanam ku la bañ day dem ginnaaw sëriñ xalil ñoo ngi ci yow baari saxaaya ku sopp sëriñ xalil saar yaa bi amoo ci maas li dale fii ba weesu faas yow ñu jébbal bi sëriñ xalil yaa jaraway te neexa taas ngir xarnu bi way amoo fi maas li dale fii ba weesu faas yow la ñu jébbal xarnu bi sëriñ Moustapha Basiro la defar sëriñ xali sëriñ safa basiiro la defar borom gaal gay depaare daaru minam jëm aljana abli safinatan bi kulli janna min daaratil minna ni yaasal minna sëriñ basiiro koy kondir machine ba fala ne ñoo ngi ci yow saar boo duggee yóbbaale seytaana rajim bismillahi rahmaani rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi siyaare ñoo ngi baal wàq tey sàkku si ñaan te kàddu yi e, sëriñ maam Cheikh mi nga xam ne moo ko doon jottali tey dafa am ngànt e, ñu ne ma kon yow yaa koy jottali waaye xam naa lot naa ci lool ndaxte liggéey bu toll nii lu toll na Cheikh Sëriñ Sarr ñu liggéeyal ko liggéeyal bu rëy bu toll nii kenn ku nekk ci eh, ci ñun fas yéene dem bàyyi morom ja kon kooku jotale ko sunu kilifa dana jafe lool waaye nag ñu fas yéene góorgóorlu rek ah ko liggéeyee ba mu agsi ñu fas yéene góorgóorlu ñu ba kàddu yi ñu mat jëm ko matale ah sëriñ bi ñoo ngi siyaare ñoo ngi sàkku si ñaan te di la ñaanal sun borom yàggal sab taxawaay lool ci sun kanam te te wéral cër yi lépp loo xam ne fas yéene nga koo liggéeyal sa waajur waajuru baax wa sun borom àggalale ci fu kawe sa njort ah taaliba yaa ngi nii xarit yaa ngi nii mbokki jamaaxatu yaa ngi nii ah liggéey nan góor góor la ñuy def ci nin ko bëggee waaye la jàkk moom yàlla ak sëriñ bi rek ko xam ba tax na nab nabi nan ànd ak seen yéene ànd ak seen pëstéef ba ak si tey jii li mat moom kon li ci def sëriñ bi ah ñun nab nab ni nan mën naa ne wàcc nan ah kon sëriñ bi eh, ñun ñëw nañ ci yow jóbbal la sunu bopp eh, jóbbal la sunu àddiyee ci sunu digganteeg sëriñ bi kon ñun defe naa wàcc nan ah di la ñaanal nag li nga xam ne si nab nabi nan ba àgg ci lépp loo xam ne yow ci la sa yéene la fas yéene mu àggee foofu suñu borom jàppandal la ko noo ngi siyaare bu wér nag euh, tey sàkkuwaan ñaan tey sàkku ñaan bu baax a baax a baax baax ndax tey wax dëgg yàlla képp koo xam ne siine yaa ngi ci biir jamaxatu bi am nga ci yéene joo xam ne fas yéene cee doxe noo xam ne kon ñoo ngi sàkku saar lépp loo man ci ñaanal leen te euh, tegaat leen ci aw yoon ci lépp loo xam ne nii la ko sëriñ bi bëgg ak fas yéene fi nu fas yéene jëmale yoonu sëriñ bi suñu borom jàppandal na ko saar yaakaar na la ci kon ñoo ngi sant bu baax di gërëm bu baax te eh, di sant di sant di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di sant yàlla bu baax ndax lii ak sant la fii la ñu sunu borom dimbali woon daaw ñi teewe ko fii di ko wax suñ borom dimbaliwaat nañu ren jii ba nu teewe fi kon bu fi yamoon sax neex na kon alhamdulilahi rabbil alamin kon sëriñ bi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lot nañ ci kàddu nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu billahi min asaytaan arrajim bismillahi rahmani rahim yéen mbokki lislaam mbokki taalibe yi mbokki jamaa jamaatu Seex Sëriñ Saar maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di siyaare maa ngi leen di ndokkeel ci bis bi ñu amul lu may moom maa ngi leen di xamal ne am na loo xam ne bu jotee day yomb trouvé ngeen indi taxawal ko ba ñëpp dégg ko ngeen jëf ci ba ñépp gis ko lu leen seen maam ju baax jee Seex Sëriñ Saar baaxe la waaye ñi leen fi jiitoon bëggoon nañ ko te amuñu ko waxee ko yomb na waaye jëfe ko jafe na waaye waxee ko ba àddina dégg ko nga jëfe ko ba àddina teg ci bëtam ba kenn mëntu ko weddi ak jagle la kon am na lu ngeen ja lu leen seen maam ja baaxe muy xaas ci yéen yàlla na ngeen ko murloo na dégg naa lu ñu wax man nag la ma waxoon démb moom laa wax tey moom laay wax ëllëg dara dara dara dootu sama yitte lu may liggéeyal sëriñ Touba ndax ku mënoon dox laa ku guddub tànk la ku bari xame laa ku bari fu ma joti woon la waaye loolu lépp lijjanti na ma liggéeyal Serigne bi rek caa tey nag bu ma demee ba agsi fii saa borom daan na may baaxe wan ma yoon wi liggéey bi moom pas-pas rek la takkuwul ci bari takkuwul ci néew mu ngi takku ci pas-pas rek kemt laay sa pas-pas ak sa yéene daal ci la sunu borom di nattu ci la lay fay boo gisee lislaam di wax Niger nangam su ma ko amee danaa def nangam giñ naa ne su ma amoon soxna sax su defee nangam danaa def nangam loolu waxtu amee soxna ca donte ci jamono ndaw nga ko doon wax boo accès ci loola dañ la koy fàttali ne nisér la def ko wala nga jotu ko gën nag liggéeyal yàlla yonent yàlla Muusa nattu ba la muy rëy rëy rëy la jurgee bari bari bari la muy alal jëy dem ba jeex tàkk lépp weesu doon man de su ma amoon lii naa ko jaamu yàlla ba mu jeex yàlla denc loola di ko xëy di ko jox alal di ko jox alal di ko jox alal di ko jox alal ba alal ji sax jaaxal ko moom lañu jëkk may ci kaw suuf ci leen daganal ak xaj yi daw ñu dugg ci biir kër man fay nekk ci leen daganal ak xaj mën a sàmm ci leen daganal ak xaj wut ab tokkóor dara ji yonent gat moo tax ñu may ko ko moom rek moo si am ci kaw suuf junni xaj yoo xam ne yii bés bu ñu xëyee kenn ku nekk des na tex ju junni gert nga wàññil ba ko di ko sàmmiñ lépp suñu borom a ngi nattu loo mu rek lu ma am rek mën naa ko jaayante ak yàlla ba mu demee ba ji bari ba mu ne daal alal àddina ñëpp a koy bokk ci moom la tubaab bi fa fab ab xaj di ko takkal ak der ci baat ñu bari xamuñu lu ñu jublu moom nag da ko doon def urus la ko doon def ndax booba wan leen ne koom-koomu àdduna du dara te ñëpp ko bokk moo jëkk a takk tëgg cakk wurus takkal ko takkal ko ay xajam moom la tubaab bi roy ba léegi te mënuñu koo jot gannaaw nag kooka lañ nattoo nag alal ja dem ba jax takk gën nag doomu aadama koo xam ne yow agula foofu moo tax lu ci ab jaam di wax na nga ko méngale ak pas-pas boo xam ne bi àttan na ko ndax boo ca àggee suñu boom dana la ko laaj waaye ma li wax ñeme naa ci tey daal loolu liggéey sëriñ Bàmba nekkul ci sama kanam pas-pas bii ngeen ma jox nag njër jataay bii ma toog fas naa yéene fab sama pas-pas boole ko ak seen pas bu jébal ko sëriñ Touba ku amul kilifa amul waaye ku nangulul sa kilifa moo am yàlla na ci yàlla musal man de duma def lenn lu nga xamante ni kilifa gu yëgu ko lu ma def rek ba boo ngeen def ci attention maa nga jóge ci kilifa gu soo noppee dellu ci kilifa gu léegi bi may wax solo la ndaw jóge ci kilifa gi mi ngi ñëw te laa jóguma lu ma wax mais li ma wax xam naa ko ndax téléphone nañ bu yàgg ndaw sëñ baa ngi ci biir kër gi fi mu toll noppi ñee jaar ci ak lënd wala wala wala fu ñaxe barke sëriñ Touba du ma ci jaar du ma te lu ma def ñeme naa ci ndaw laa ngi nii waxaguma sëriñ bi wax waaye wax waa kër gi téléphone nañ ma te ndaw nga ñëw leneen def seere si ci kanam penc mi incha allah lépp lu ngeen liggéey teg ko ci sama loxo danaa ko boole ak li man ko borom Touba ngir loolu ma alali sëriñ Sarr ci kaw suuf. sa sama ma bàyyee mooy liggéey di sëriñ Bamba gannaaw jaamu yàlla du booy juróom maa ngi fi nekk sàmbakan bi nooy du booy. am naa lu ma ci def te jaral na ma ko te ñu ma xam-xam nañ loolu ba ndaw lay dem addi lay yóbbu te bi may dem ci réseau xaat addi laa yóbbu woon te tàgguma kenn ci yéen te la ma joxe maa ko moom sama bopp kon loolu naa ko joxe sa alal sañ na ko la ma joxe maa ko waaye sëriñ bi jaral na ma ko su ngeen fa bay seen ma jaraay ba ne comme ça la jox ma dinaa ko boole ak sama jëbal na ko sëriñ Bamba kon nag jërë ngeen jëf sama xol sedd na. wane ngeen ne lii fi seen maam teg fonk ngeen ko warmaal ngeen ko nit sooko ko warmaalu doo ko darajal lii ci daraja rek la te daraja li gën a fi àdduna mooy tabe ci tabe ci daraja tabe ci àll yomb na waaye tabe ci daraja defaru ba jekk yor sa xaalis solo ba jekk yor sa teraanga mën a faj aajo nangoo doxi soxla day na ñëpp nangoo toog ci suuf ba nga say tànk bu ñu nee nga dem ak tali bi rek ko war kon jërë ngeen jëf yàlla ko sama bopp nangul boppam yoon wi ngeen jaar yàlla na sama borom dàq seytaan lafa leen cat mooy siraatal mustaqim ii dina siraatal mustaqim mooy foofu te mooy ab taalibe nag sant góor sant jigéen sant jigéen ñii ci seen gannaaw te waxtu ngeen ñu bàyyi leen jàppante leen maa ngi déglu waxtaan yi diggante bi rajo mënu fee wax lu ma xamul lu ngeen wax dégg naa ko kàddu gu ngeen yëkkati rafet na moo gën a rafet gën waxoon démb loolu pas-pas mënu ko weesu dara du seen yéene du seen yitte lu may liggéey seen maam Serigne Sarr dara du seen yitte du seen yéene lu may dëkk bi baax ba mel ne Touba waxuma beneen dëkk Tuubaa rek moom mooy sama référence loolu fa teg sama tànk te fekk si ngeen ma ci loolu kon nag yàlla na ko suñu borom nangul boppam sant naa jigéen ñii nga xam ne nag wax dëgg yàlla doole jigéen bariwut waaye ab sag lañu dara yu tax gub ba bu ngeen doon woote du ngeen leen gis jataa bi dana wéet te jataay bu dee wéet lee mu soof kon sant naa leen bu baax gërëm naa leen yàlla yàlla sàmm leen te barke liggéey bi njëriñ yi ñu am ci kër yi. toog fa di fa jaamu yàlla yàlla nañ saam dafa barke bañ muurloo ko ci barke Seexul Xadim yéen itam yàlla na fay yàlla fay ne lu kawe seen njort yéen ak seeni mag ak seeni i baay yi topp ci man bokk na leen gërëm ci ngërëmal sëñ Sidil Muxtaar am na loo xam ne jërul wax waaye ku xool war koo mën a gis barke Sëriñ Bamba sama diggante sañ Sidil Muxtaar dara doxu fi mu toll maa leen ko wax dara lees jàmm dafa na ma nekk téye bu dëgër te dara mu tax mu dellu gannaaw waaw loolu la ma sama bàyyi bàttale woon loolu laa ko jox loolu la ma nangul loolu ngeen ma jox loolu laa leen téye loolu laa leen nangul kon yàlla na yàgg. jëf jazaakumullaahu na xayra jazaa yàlla na te kenn a manqué tiir yi ak njàqare ak jaaxle yëpp amul solo suñu borom dana ko dindi. sëriñ Bamba dafa liggéey ba ñëw daal di wax ne bii xani naa lil jënaan an xaswatin wa an awaan bii naa taaba saman maa xabali xadami moo ne rusuma taxaw kenn di jàmbale sama soxla ci yow fi mu toll. loolu ne nag dinaa ko nëbbu toog xaar sëriñ Sarr ci kër gi fii la fii lay fajoo fii fii fii barke sëñ Touba lu may dàq jaaxle du ma génn du ma ko wax fii ci kër gi laay toog rek xaar Serigne mu ñëw faj ko. loolu Serigne bi def ko jaayante nag borom may ko ko ku ci nag xam ko waaye dimension la boo xam ne ku ci àggagul boo ko yotee day métti ci yow waaye yàlla na ngeen ci àgg ak jàmm nag waaw yéen daal na ko yéen ñëpp yàlla na ngeen ci bi du dara lu may ndénkaan muy luñ bokk nag far léegi ñun ñëpp a ko bokk. kenn ku ne am na ci wàll su ma sañoon ku ne gis ci boppam kon nag jërëjëf wax ji gudd gàtt yéene man maay yéen yàlla na yàlla bokkum nangu rek doy na te loolu rek mooy li wér waaw Serigne Sarr rek tax mu toog fi Serigne Sarr rek tax ngeen ñëw fi Serigne Sarr rek lañ bokk te kenn mënu ko séddoo wàcc sa morom kon nag yàlla nañu am ngërëmal Serigne Sarr ci barke Serigne Bamba jazaakumullaahu xayran jasaa daal di sonn loxo ci jazaakumullaahu xayran amiin amiin Sarr amiin Sarr amiin Sarr mina seytaan rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barkeb Seex Sëriñ Saar gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam sant Seexal Xadiim di sant Seex Sëriñ Saar suñu sant ba ñu ngi teew fii ci kër Sëriñ Xalil Saar mii xalifa Seex Sëriñ Saar woote bis bii nag fii ci mux-mux nag ci ndigalu Sëriñ Siidi Saar taar Mbàkke xalifa Seexal Xadiim yàlla na fi yàgg lool ak Sëriñ Siidi Saar mi nga xam mooy xalifa Seex Ibrahima Saar ak mboolem nag njabootu sëriñ Touba gépp mbokk moom ak ba nekk nag wala nga tàmbalee kër sëñ Modou Moustapha ba ci kër sëñ Mamadou Mourtala li tàmbalee ci kër soxna Faatija ba ci kër soxna May ak it mbooleem nag lépp la askano Cheikh Rayma Sarr woon na leen ci nag bàyyiwu ci kenn ak taalibe yi ak mboolem jullit bu ñu teewee ci moom nag tey ci bis bii sëriñ Xalisa ànd ko ay rakam nag yi rakam yooyu mu ko àndal nag mu jaar ci jiital nag ji nga xam mooy jëriñ ji nga xam moo ñu fi indi jabal muy sëñ maam Cheikh Sarr moom Cheikh Serigne Sarr say doon naayib boo xam nekk na ci kër gi nag ñu tey ci jëmm ji nag di ko caara ci bis bi sëñ bi nag bis bi nag woote ba rëy na rafet na ñëpp wu ci nan bokk yi taalibe yi soppe yi wëllëre yi ba ñu xëyee ba tey ñetti fan dëkk bépp fot na tey ji ku génn ci penc mi ak ku génn ci kër yi kër yëpp fees na kilifa àdduna sa sëñ Tuubaa seexaloon sa mbaam mbaa nga sant Mbàkke ñëw nga ci bi ngir xam kat sa taataankat li nga xam moom la sëriñ Tuubaa defoon seex sëriñ Saar ndax ba ko sëriñ Tuubaa jox ko fa defee toog fa ni ma ko ma defal ma fekk la fa kon loolee ko sëriñ Tuubaa joxoon sëriñ Saar fii la ko def ci mox mox nag njabootam gi ko fi toogaloon doon muñ di ànd ak seen baay di di déglu seen déglu baay di wëlbiku nag di tarbiyewu di laxasaayu fu ñu yaatal liggéey bi si sëñ xalisaa bi nag mu yaatal ko ba mel nii nag ñu toog ci ëttam bi nag di ko siyaare nag ak mboolem taalibe yi ak mboolem dëkk yëpp nag ak mboolem namp eh, taalibe yi ak julli yëpp nag di ñaan saa moom guddal saw fan yàggal sa taxawaay ci bis bi saa njaga xer maam ndax woote bi na waaye nag ñëpp wuy si nag sa wuy si yéen lañ ko defee ak soppe nag bëgg ak tàttan nag xéewal gi Sëriñ Tuubaa joxoon sa sëriñ saa ci dëkk bi bi nag ñu ngi lay ñaan na saa moom guddal saw fan yàggal sa taxawaay ci barkeb Seex Sëriñ Saa jërëjëf bi nee na doy bi nee doy na wax bisimilah nan tàll ñu naan bisimilah tàll ñu naan ñun tàll ñëpp sëñ bi ñaan. seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim barkeb seex sëriñ saar danaa ba sant Yàlla julli si rasulillahi sallallahu sant Seex al di sant Seex Rayma Saar Allay Ahmad Mbacke di sant Seex sëriñ Saar mi nga xam ne waral baral bis bis bi bis ngi fay ci fii ci moom wax ci ëttub Seex sëriñ Saar di dëkkub Seex sëriñ Saar ci péncub Seex sëriñ Saar di it bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku Seex sëriñ Saar muy gis mi nga xamee ni ci la ji añal añal ji woon ci sangam ba Seex al Xadiim waaye ñu ngi toog ak jëmm joo xamee ni ci buntu kër bi ñu ko sëriñ Manouba Diop moom sëriñ Ibrahima Diop mi nga xam ni ne waajuram it bokk ci taalibe yu magi Seex Sëriñ Saa yi bàyyam ñu yëkkati woon ko jox ko Seex Sëriñ Saa sa fii la eh, ko laxasaayoo nekk ci daara ji doon fi dongo ba doon fi jëwriñ lépp sëriñ sa Seex Sëriñ Saa ko defal kon nag bu ñu fi agsee tey ci bis bi sax xam ne dëkk bi moom bari na loo xam moom ci xawam ba ni mu nekk mag fi la ko defee ci waajuram Cheikh Serigne Sarr kon mën nañ ko cee laaj ci seer Serigne Sarr mi nga xam moom la taqaloon nga xam ne bis moom bis Serigne Sarr Cheikh Serigne Sarr tàmbale Cheikh Serigne Sarr yem ci Cheikh Serigne saar la ak dëkk bi sëñ Manoumbe Diop kon ñu lay laaj loo ñu mën a wax ci sa sang bu tedd boobu. asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi. bokki taalibe yi bokki àdduna noo ngi leen di nuyu ci tur nga xam ni moom lañ xam ci noonu muy sëriñ Serigne Manoumbe Diop taalibe Cheikh Serigne Sarr doomi Serigne Ibra ginnaaw nag ban dulee bañ sante yàlla julli ci yonent bi sant Cheikh Ahmadul Khadim dañuy bëgg a laaj ay laaj yoo xam ni yéen ñor la waaye nag it gënu xam la ndax laaj bi may laaj ki may laaj di Seex Sëriñ Saar sans bàyyi sans sëriñ moo ma yaral boppam mësuma génn loxoom ba talaata ji nga xam ne moom laa ko toggee du tàggoo di tukki weer ba feeñ dimanche ñu um koor altine altine ja ñaar fukki fan ak juróom-ñeent weer wa feeñ ñu woori talaata talaata ji dellu si bisub tey bii bàyyi sëriñ dem Touba sama diggante ak moom noonu la demee leewu ci loxo andil ko ba sikki weex tàll tàqil ko maam bàyyi sëriñ nag ku neex a waxtaan la koo xam ne waxtaanam it jëru ta wax lu yaatu jër ta dóoral ndax li mu wax doy na li mu def doy na ndax Baye Serigne saar moomu ku baax ku ñuy wax Cheikh Ibrahima Sarr ci moom la ko yàlla jaarale waaye nag Baye sëriñ saar moomu moom la Cheikh Amadou Khadim njëkkaam ci tur woo xam ne ab taalibe ko jur am na ñu tuddee Serigne Touba ay tur waaye booba Serigne bi sax feeñagul jamono waaye nag ab taalibe boo woo Mbàkke jébul Serigne Touba. tuddee ko Cheikh Ibrahima Cheikh Ahmadul Khadim ci Cheikh Serigne Sarr bi la njëkki moo ko ti boppam it moo ko yaral boppam it ci moom moo ci def ba dara maa ngi fi ci waaye nag góorgóorlu la ba la ko Serigne Touba joxoon delluwaat naa moom àjjana te dara si kuti Cheikh Serigne nag day jëmm joo xam ne li tax muux muux gii sanc na muux muux ba jóge fi dem sañ ci ngay dem tëddeeful dem jaxaaw dellu siwaat fii di mux mux ndax la ko Serigne Touba joxaloon boppam teg ko ci loxo muy suuf dañu ko demal seet foo ko fa bëgg def ko foo ko dama fekk la fa booba kër gaa nga fële ca ginnaaw raay ba tool yaa nga fële ca ndax kër gu njëkk ga nga xam ne moom la njëkk a sañ ma nga ca ginnaaw guy gëlee gu màgg seetal na ne fa fa sunuy baay ñun tër bi yow woo Seex Serigne Sall kon Baye sëriñ day jëmm joo xam ne wax ci moom lenn rek doy na ci li ñu wax ni Serigne Touba ko ni baa ba ne ko bàyyi Serigne Touba ko tarbiya ba seexal ko ci kanamam sëriñ Touba ko yoral boppam ba keroog bi mu fekk Serigne Touba ba tëggee di Serigne Touba. Cheikh Serigne Sarr na jëmm ja meloon na la xol ba melo jëmm jaar rafet lool ba foo ko gis fonk ko sopp ko mën a toog ak moom waaye noonu la xol ba mel nag daa taxaw rip ak ngërëmal yàlla niin bat ci ngërëmal ñool tooy xipp nag xaadimal Mustafa tàmbalee booy Serigne Touba ca digg ba booy Serigne Touba keroog moo ngi jiit Serigne di wuy ji Cheikh Serigne nag. def na ñetti kiimaan ci sama kanam man te booba maa ngi ci daara ji la benn kiimaan bu njëkk bi man ko def ci ba ñuy sëñ bustaan gële bàyyi sëriñ danoo toog di jël timis ndaka la ne asalaamaaleykum daal ni daw leen ca xurbaan ma wetu xurug maa gànna ma ay mbaam àll nga fa yàq li ñuy wax ngara ñu daal daw ba nu eggee ca cat la fekk na ñu déq lu bari ñetti mbayta loolu mu xaji saat la ndax wax lu yàlla dogal la ba ca topp ma tooga moom ca kër gële ci mbaara ma mu ni ma nubbe ma ni ko saar mu ni ma képp koo xam ne yaakaar nga ma mbaa nga takk ci man sa mbir ma ma leer ni sa bëri di baaraam yi xam wax la rek mbaa wax bu soraal la waaye dara umpoo ci sama kenn ba ca topp daal ci sama jëmm ji booba noo nga bu saan jóge ci kër gii di dem bu saan di liggéeyi dugub ñor bàyyi sëriñ ma ma nume ma ne ko saate boobu maay jëwriñ bu ngeen demee bu leen ñam tool ya ñu dem xam naa li ñuy wax xiifu dongo ak bëgg def loo xam da nga yaakaar ni sëriñ bi di ko yëg ñu dem ba ca catal tool ba di dagg xëtitand gi dagg mbool ma dem ba ca biir xuroo ñu ko ba noppi fabaat si bii ñeer teg foofa ndax bañ koo xam waaye ba ma yenoo sama sayingu ba ma ñëwee ba dugg ci kër gi booba fasu ñu wax fàllu fi ne muy fas sàll sëriñ bi te maa yor ndaka la fàllu bu toogee tuuti lu mat juróom bi day daal di woo leen Manoumbe ndaka lañ ma woo ma ñëw wuy si ko damaa daw bay egg seeg sama laxasaay mu ne ma Manoumbe ma ne ko Sarr mu ne ma dama leen woon bu leen ñam tool ya te noonu ko defee ca bustaan moom mu nekk ca kër gële dama leen woon bu leen ñam tool ya waaye tegu ba ca ah Sarr dañ koo sàcc mu ne ma Manoumbe tool yooyu yéen a ko bay te yéen a koy lekk it nag waaye da di taw bi yàlla bii bu ñoralee bala ñu ko war a jëfandikoo dañ ko war a toppatoo ba noppi ci ñaan ngeen doog a ko ne a kooku ba tey benn maat mukki saat sëriñ bay sëriñ Sarr defaat leneen na loo xam ne moom mat gën a mat kii ma fas woo xam ni bay Ibrahima Mbaye asta alif ñu tuddee ko jëmm ji noo bokk benn baay maa ko mag fuuf nag fuuf waaye nag daal bi Baye Serigne Sarr la ñu ko tuddee mooy Baye Ibrahima mbay jinde ñu naan ko wax Baye Ibrahima jinde dafa am dafa tukulóor ba sa ñëw ca moom yàlla dogal mu faj ko ñu weexale ko aw fuutànke fasu naar góoru xam nii la toll fas woowee mu jox ko bàyyi Aliou mu jox ko bàyyi Aliou ñëw bàyyi sëriñ ma noo bëgg a mel melal fas wi maa yoroon fas wi ñu tuddee fas wi Riij Fàllu maam Cheikh mi nga xam di kii topp ci moom yenu naa say ngub maam say yenu say Cheikh yor say ngub ñu ta ba ñu jéggi bi jaan màtt ko waxuma ko waxuñu ko sëriñ bi maam seex fanaan ak moom bu bët seen ñu gis tànk bi nee bi mu ni ñu dem fekk cola ko coli ko maat fa mu nekkoon jógu fa waaye wàññiwu ko dara fas woowee fa bàyyi sëriñ jafe kiimaan mu ne man boo bëgg mel melal ne fas wi ma yor fas woowee yor fas woo ba 1962 fas woo tol noo xam ni mel na ni daanaka jaadootul magi Seex sëriñ Sarr ñu di ko wax sëriñ Moodu Sarr njëw fi fekk bàyyi sëriñ nga kees mu ñëw dégg fa sëriñ xal mu ne moodu Modou Sarr doomi bàyyi sëriñ loolu mu doon ko salu bàyyi sëriñ mu ne ko bu tàkku seen nañ ma koy di ma xool ca tàkku saan ma def ci ñaari jatang waaxoo moom jëm ci sëñ Fallou sëñ moodu bi nga xamee ne nee na tiget cadre buntu bi nii la naawee mu rëpp rëppeeg si sëñ Modou daal di jóg roof loo xam ne ci cañ la ba egg si fii barkeeloo ko daal ni ma delloo ma delloo. mu xëy defe nañ day laajee addiya booba sëriñ buy laajee addiya fas ngay war ci dëkk bii boo demee ba ca dëkk bële ñu wàcc foofa ñu jox la keneen mu ànd ak yow ñëw nga waraat beneen booba oto a bari laa nga bari naa nga bari sëriñ Modou Sarr daal di fay jóge jëlaat ba oto saxaar gu ñuy wax Louga liggéer delluwaat Louga jëlaat saxaar dellu kees ba mu ñëwee fekk bay sëñ Sarr mënu ko ah Sarr waa mboq mboq ne nuyu nañ la bàyyi sëriñ ñu bëri ni ko ah sëñ bi. foo jógee mu ne ko moo ko moo ko ko nañ la. am parce que moom ne ah saar naka lañ def mu ne ko ay sëriñ mu ne ko Mbàkke mun ne ko fekk naa fa àll lu doo xam loo fekk naa kër ga lu fa warut bàyyi sëriñ nee na keroog la sama fi njëkk a dem ndax kër goo bàyyi ay dong ak jigéen sa kilifa dem fa ni la fekk naa fa lu fa warut buñ la gaawul liggéenti dana jafe ci yow bàyyi sëriñ ne ko lu mu doon mu ne ko sàll woo doom Ibra Jóob ja yor alali sang la war a dugg ci kër war a nekk sa kër keroog Baye Aliou Sarr mi nga xam ne moo doon liggéey ci semaine de fer du fay moom la yebale kër mu ñëw fekk ma fi li ma sëñ war fas yi ngeen dajee ji Touba alal ju toll noonu sa kilifa la sa kër ndax alal lu ne ci këru jaam nga daal di a muñ loolee ne ko demal naa naa moom ma war ko dem ba ma ñëwee ba meesare kër Baye Cheikh Maguette Ndaw fa toog ñaari fan ba ñuy noddu ci jumaa ja boobu jumaa ji yeggagul de waaye ñoo ngi fay ñuy noddu laa daal di raam ak fas ñëw ba ma ñëwee ba nu ñëwee sëriñ bi jógee Thiès te ko bu ko sëriñ Seex Seex Fallu Mbàkke joxoon sëriñ Abdou Sarr moo ko doon fekk maa ngi tëdd fàlloo gi taxaw bàyyi sëriñ jóg ci biir dellu si laa ma nii tànkam. bu ma jóg kañ nga ñëw ma ne ko ñëw naa sànq mu daal di woo Baye Maguette Cheikh Maguette Ndaw Baye Ousmane Sarr Baye Xamed Dieng ak mag ñi nga xam ne ñoo sësoon ci Baye Seye ni leen àndalee nag ma nubee moom loxoom ak loxoom Serigne Fallou Mbacké maa nga sew ruuj waaye laxasaayu naa ba laxasa laxas gi dagg sa tànk waaye nag booba it ragalu ma dara dara lu ñuy def loo maa ànd ak moom it ba egg Cheikh Fallou Mbacké booba ku ñuy wax am di laam moo nekk bëkk nekk ci kër Serigne mooy kii ñu yëglu mu nu taxaw leen ceetu gi roog gi gis gi ñu taxaw tuuti Serigne Fallou egg si ma nga fab kol euh, sarbet bu xonq teg fii akub tur ki dara ndaka leeg si daal di roog song fas wi daal di teg loxoom fi cëkkum kanam mi ba laal nga mi def ko ci kanamam fas wi tàmbali tur rox ma ko xam waa bàyyil waay alal buy dugg sa saw mbaa mu nefere jàppal boo jàppee muy sa wërsëg ci gi bi Baye Ousmane Sarr ni ko sëñ Mbacke Bari nee na fas wii doomu Ibra Diop jee ko ba mu mel nii ay topp si ma wax lu turu la mag topp si ma wax lu turu la mag ma topp si ba sës ci moom nii mu ne boo demee ne sa baay Ibra Diop sa baay Sëñ Fall leen Ibra kalkal awa turu la mag woowu turu la mag ndax boobu noo ngi jàng fii fi ndaam sa baay moo nu daan yelwaanal waaye daal bu yelwaanee ba noppi sëñ mbokki baay ñu dugg ci say ñax yi lekk ba mu ba mu ba ba suur doog a indi ñun la ca des ñu këlëm ci kooku ma nag teral nga ko yàlla na teral tere nga fa yàlla na tere wax li nga bëgg ñu defal la ko te booba sama baay def ni ma ngërëmal yàlla dong laa bëgg ci yow man ni Serigne Fallou xanaa nekk daara ji ba am ngërëm Serigne Fallou mag ña daal di ña fa nekkoon ñëpp ndax booba Serigne Fallou koy wax nangam baar ma koy wax nangam Serigne Fallou ne waaye juumut ni lan la def keroog tàcc waaye juumut juumut borom baraag bii di Xaadimu Rasuul lu mu am ngërëm ko may kon ngërëm yàlla rek loolu samaan sëñ Saar jaar na ci di nga taxawaay bu mag nag day yàgg waaye bu woon loolu naa leen jox ay mox ji saat ci moom daan wax loo xam ne lii li ngeen di wax yéen ñi dégg nasaraan A à Z sama A lépp seex sëriñ Saar jërë ngeen di waat waaw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 Euh, mu may ko ñu may ko wér gi yaram ak fan gudd ba mu li mu yéene liggéeyal siñ Tuubaa mu liggéey ko ni mu ko mën a ni mu ko bëgg liggéey te ànd koog nun ñu ngi fii nag tey ci tubaa Mokh Mokh kër Serigne Sarr mu doon dëkk boo xam ne nii ciy kilomètre mel na ne sori na tubaa waaye mel na ne ab quartier la ci Touba rawatina nag bisub tey bii nag bisub tey bii nag nekk bis boo xam ne. Euh, góor góorlu dana tax a doon góor te góor day jàpp ci góor góor jàpp ci góor góor jàpp ci yàlla euh, Cheikh Ibrahima saar léegi la ñuy waxtaane ne moo Cheikh Adama Guèye ñi leen jiitu ci sëñ Tuubaa bariwul ndax la leen njëkkoon a boole dañoo dem ba yàlla dolli leenug leer euh, la leen njëkkoon a boole mooy sàkku xam-xam moom lañu doon sàkku ba yàlla boole leen ak sëriñ tubaa waaye ba nga xamee ne bis ba nga xamante ne bi Serigne Touba jot na mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sun borom wax ko ko nañ ko rabbi asxaabaka bil bil xima wala rab bi darsi faqat keroog la leen xamal ne am na leneen lu ëpp li ngeen fiy wut ñoom it mayu yàlla ak ndimbalul suñu borom moo leen teel wan la nekk ci biir sëriñ tubaa ah ñu sàkk ko fa nañ ko fa war a sàkkoo te teel koo sàkko te cërub njëkk nag dafa foor ah, ba ñu ñëwee itam yàggul dara ñu daal di Cheikh Ibra Fall yàlla ba sëgale leen ko mu indi fi lii nga xam ne moom la mooy yoon ni yoon wi di doxee mooy joxe cër wàcce sa daraja sa kilifa dong yor sa baat foo toog loo yor jox ko te boo ko xoolee di bëgg a jooy ngir sopp ko ñu ànd ca ba gis ngeen ni leen yàlla def kon nag tey jii noo ngi fi ci mox mox gi nga xam ne njabootu sëñ Touba gépp xam nañ fi bàyyi sëriñ mu amanteeg ñëpp boo du kër goo dugg ci kër sëñ tubaa dangay ngay defee ne bàyyi sëñ Saar foofa rek la jëmbat ak njabootam. tey jii nag ngeen gis nu nii nu nekk fii maag Cheikh Mouhamadou Cheikh Mouhamadou Moustapha moom Cheikh Mouhamadou lemin Baara mi nga xam ne ni moo nekkoon xalif général murit te liggéey fi liggéey bu réy bi mu liggéey ci diir bu gàtt boo xam ne nii euh, ñu bari. wax nañu ne yàggu fi waaye Cheikh Mamadou Lamine jëfam boo ko ci xoolee dafa mel ne yàgg na fi kon nag yal na yàlla dolli leeram te taas na ci barkeem Cheikh Moustapha ñu di la ziyaare di bég ci yow di xam di xam leen ne sa yitte ku la bëgg am na fierté ci yow ndax yitte woo nga doomu aadama yi am nga yitte bëgg nga nit ñi xam nga ne nit ñëpp it sëñ Tuubaa rekk leen moom ba tax na kenn ku ci ne. Euh, da nga joxe cër ba ko dajal bu gàtteem xel dana defe na dara la kon nag ñi ngi lay ñaanal sun borom tabaraka wa taala mu téyel la say tànk may la fan gudd gu wér ba lépp lu ji yéene woon nga yeggale ko yaag say rakk yëpp euh, li nga xam ne nag danaa ko ci sànni rek day gàtt fii laa koy euh, moom laay wax rek te termine mooy sëñ maam Cheikh wax naa léegi sëriñ Xalil ne ko sëñ Maamun dey Euh, ak sëñ maam Cheikh ak sëñ naa ak sëñ Abou Chouaïbou nekk nañ sarak yoo xam ne li nu gën a neex ci muux muux mooy yow dañ laa fonk yow dara jàll nañ la teewal nañ la fu ne yitti ji itam fu saw turu fu ne buñ fa ñëwee duñ fa wane seen bopp mu xamal ma ne nag may ñoom ñooy man te loolu xalifa boo xam ne defoo ko gis say rakk foo xam ne ni bu fa dem bu fa demee teewal la fa am fa addiye wala mu yokk fa daraja soo ko ko iñaane ba def koy mu sol mbubbam am xam-xam am yitteem dem fa ci turubaayam te ku ko yàgg lebal ku lebal nit bu yàggee da lay fay ah, mu doon diggante boo xam ne ni tax na ku fiy ñëw sawar ci waaye tey jii ku leen bëgg yéen te sopp leen seen yitte jigéen am ci yoonu murid yëpp di ko coow fépp foo xam ne jataayu murit la boo fa toogee boo fa bàyyi boo leen fa fekkul bala nga faa jóge boo fa yàggee ñu fekk la fa loolu nag dama lay xamal ne nit ñi ñaari nit képp am ci àddina nit ñi ñoom sëriñ tubaa rek lañ mënta ñàkk Serigne Touba képp mooy mën a toog ñu xam ne mi ngi njariñam kenn ku ne xam ne mi ngi sa njariñ ngay dox wuti ko te doo ko sañ a bañ waaye ñeneen ñi ci des ñëpp kenn ku ci ne yëgante mooy tax a jëflante am ak xamante su ko defee nag kon. Euh, nit ñi ñoom ñaari nit ñi fi ñëw yéen dangeen leen a xàmmee nit ku ki fi jëkk ñëw mooy koo xam ne dafa am ci yéen yaakaar ba yaakaar ne su leen lebalee da ngeen ko fay boo lëgee ak ñeneen ñi fi ñi ci ëpp nag xam naa ne mooy ñii may bëgg a wax mooy ñi ngeen lebal te mënuñ leen a bañ a fay te tey jii Touba moo toxu mënumaa lim benn famille boo xam ne nii bokk na ci Serigne Touba wala mu bokk ci ko Serigne Touba defar te gisuma la fii lu bokk ci yow. loolu nag kon li ngeen nekkoon na ngeen koy continuer jëlale naa ndam li leen ci yàlla jox waaye képp ku bëgg li ngeen am faaw mu roy leen ci doxin bi ngeen di dox ñu ngi sant nag bu baax di leen gërëm te di feddali kóllëre gi di ko tàmbalee ci sëñ Xalil ba ci ki mujj rawatina ak yow mii nga xam ne nag maa ngi lay wax léegi na la sa discours daaw ba maanaam loolu lu Cheikh Ibrahima Sarr la rek waaye maanaam nekkul loo xam ne nii loo luñ yaakaar ne yow sa xam-xam wala sa dayoo yegg na foofu. booy wax koo mag ak la mag ñëpp danañ gis seen bopp ci li ngay wax kon nag ñu ngi lay sant di la encouragé te di la ñaanal te di la xamal ne kenn taxawul sa mag kenn taxawul sa baay kenn liggéeyalul Cheikh Ibra nga des am nga yitte am nga gi yëg ñu ngi lay ñaanal di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom dajalewaat nu fi ay yoon yoon te yoon wu ne yàlla na nu dàqal wanu weesu ci barkeb Serigne Touba barke Cheikh Ibrahima Sarr jërëjëf. mbokki taalibe yi yéen ñi ni déglu ak dinu seetaan xam ngeen tey di talaata juróom-ñetti fan ci weeru kore gi nu ngi ci béréb bu bu barket bi di Touba Mokh Mokh nu ci fàttaliku jàmbaar ja mu ni bàyyi sëriñ Saar Jasaaka di ñaan yàlla suñu boroom doole ay leeram taas ñu barkeem ci doole Cheikhul Khadim Cheikhuna Ahmadou Bamba ki ngeen jàkkaaroon nu ngi boo jox kàddu gi moo di sëriñ Mudu Mamun Mbàkke moo rek sëriñ Alaaji Buso bàyyi ko ca sang bu tàdd ba sëriñ Mahamadou Basiru Mbàkke moom sëriñ Touba Cheikh Abdou Khadir Mbàkke yor ak kàddu xalifa général de Mouride di Cheikh Sidi Moxtaar Mbàkke yàlla na fa yàgg te wér ci Mbàkke Seexul Xadim fekk goog nag njabootu bàyyi sëriñ Saa Jasaaka ci kanam sang bu tàdd bi ci déglu sëñ Xalil Sarr mi kilifa kër gi di xalifa bi waaye fekk goog sëñ Maam Cheikh Sarr ak ak mboolem jabatoog Baye Serigne Sarr jasaaka kon xam naa dañ yëkkati kàddu gi jox ko sëñ Modou Mamoun Mbacké aousu billahi min bismillahi rahmani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ maam cheikh sëriñ Cheikhouna ci ndigalul sëriñ Bachirou Mbacké moom sëriñ Abdoul Khadir noo ngi koy jottalil ay kàddoom fii te di ko jaarale ci yéen kon sëriñ Basiiru dafa waxoon ma ànd ak mbokkam mii di sëriñ Falilu Buso nu ñëwal ko fii mu wax nanu su ngeen demee maam Cheikh ak Seyxuna ñooy sama bunt ci maam Serigne Char mu wax nu ne délégation bi kon ñeent la mooy man ak Alaaji Falilu Buso ak yéen ñaar ñii ñu fi fekk lam nu waxoon it mooy kër gu ne boo cay tàbbi nanga xool bunt ba nga cay tàbbee mu ne kon mu ngi leen di xamal ne bunt bii muy tàbbee ci kër gi mooy yéen di nag jotal ab nuyoom ak ñaanam ak kóllëreem ndax nee na kenn mënula tudd sëriñ Touba ci liggéey bu ko mag ñi doon defal te tuddoo ki sancoon dëkk bi mu ne loolee ca la fës yéene saa yu dellusee mu barkeelu fës yéene ba aw ñaxam dem ci ndax xam na ne fu ngërëmul Sëñ Touba nekk fu ne loo mën a am amub xejj war nga caa mën a barkeelu ji mu am yéene ju toll ni saa yu bis bi jotee mu yónnee fi ngir barkeelu kon mu di leen xamal ne mi ngi seereel bokki jullit yépp ak bokki taalibe yépp ne li ku tedd kii sos dëkk bi am ci sëriñ tubaa sàkku ca loola moo tax mu di fi yeble te ñaan yi ñii di njabootu boppam ngeen ñaanal ko ba loolee mu am ca nee na it mi ngi leen di xamal ne lu ngeen lu ne ma nga ca ak yéen te lu xew nañ ko ko yëgal ndax dafa jàpp ne yëf yi fii ngeen nekk moom ngeen fi nekkal ca la jiitu woon kàddu gi di dem ci loxoom bi mu demee ba kàddu gi dellu ci loxoom nag loola kon amatunu nattable ci ne kon ay ndawam ngeen ci lu wér mu gis ne yéen a ngi doxit ca doxin woowee doxin wu rafet woo xam ne nee bu ni ñëpp doxe woon kon moom dana gën a noppalu ndax nee na nangu na ne ndigal rekk la ñëpp yi déglu waaye da ngeen cee fés ba muy lu wér te kenn nattable ko loolee nag nee na neex ko lool ba tax na saa yu jotee mu yebal nu man mii ak Serigne Fallou mii daf noo waxoon nag ñun ñaar ñii ne fépp fu ma war a teew te mënuma faa teew yéen laa fa yebal kon sunu fi ñëwee jëmmi Serigne bas lañ fi ñëwee ngeen xam ne itam Serigne Bass a fi ñëw te koo kii fi ñëw Serigne Touba nee na. moo dib tànkam dib loxoom dib noppam kon sëñ maam Cheikh ne leen wër ne jëmmi sëriñ Basiroo fi ñëw bu nu demee ba kàddu gi jeex nag nuy Modou Mamoun Mbacke kepp dib dong dong yam ak ñëpp waaye fii nu taxaw di wax ak yéen sëriñ Basiroo fi ñëw jottaleel boppam ak kàddoom ci ay soppeem ay xaritam ay wëllëreem yoo xamante ne bii nee na mënta dem bàyyi leen. kon fu mu jëm dana leen bàyyi xel ñu di leen xamal ne sant nanu nun ñii nga xam ne nun la fi yabal te yàlla dogal ñetteelu at bi nekk nii nu di fi teew si kon lanu ñaanoon daaw nun ñii fi ñëw di ndaw yi te ñaanoon ko wax naa ko léegi sëriñ euh, maam Cheikh nee naa ko la ma ñaanoon maam Serigne Sarr daaw may na ma ko ren nag damaa bëgg nga dogul ma kon loola yow laa koy ñaanloo waaye la ma ko ñaanoon daaw daal te siiwal ko am na mu ngi ci biti gaare waaw dama ne ko ñaari at yëpp maa ngi fiy ñëw di amum ndog déwén nag damaa bëgg indi fi jeneen daamaro indi naa ko fi mu ngi nii gaare kon man la ma wut si woon daaw am naa ko mm-hmm. waaw li ñuy ñaan ren nag mooy bu déwénee yàlla nañ ñëpp fekke bu kenn manqué bu kenn wéradi te lu nu fi sàkku ngir liggéey la ko yàlla yàlla na ko yàlla may waaw noo ngi sant bu baax nag tey gërëm te di leen xamal ne kóllëre gi moom bu dul woon suñ basit nun fasal nañ ko suñ bopp waaye nag ginnaaw daf nu cee dugal nu fase ci wuturam kon kóllëre gi yaatu na noo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu